alors de retour sur ce plateau ñu daal di dalal ki nga xam ni mooy suñu invité bu njëkk Daouda Ndoye mi ngi nekk ci euh, cellule euh, bu cadre euh, de la République des valeurs ñu ngi leen nuyu di la dalal ci plateau bi. soxna Souma lay gërëm di la fay si invitation bi. Mm. alors yow yaa ngi nekk République des République des valeurs bu seen leader di Thierno Alassane Sall aujourd'hui gis nañ ni Covid bi ñu ngi ci troisième vague variant bi mi ngi def ay ravages et tout ci ñi nga xamante ni da ngeen bëgg nekk ci bopp. réew mi ngeen donc euh, tout le temps dañuy soxla euh, en tout cas seen ay position seen xalaat ci euh, doxalin bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci gestion bi Covid bi et tout déjà nu leen gisee avènement wu troisième vague bi façon bi mu ñëwee ak coow lu ci am responsabilité yi nga xamante ni ñu koy essayer situer un peu partout boo doon def jàngat ci loolu lan lay doon. waaw jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm sénégalais yi ak sénégalaises yëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu. di wax ni euh, ñun au niveau de la république des valeurs li nga xamante ne ni euh, mën nañ ko jàngat ci troisième vague bi yaatu na waaye balaa may wax dara rek danga may may ma massawu sénégalais ak sénégale yi nga xamante ni ñàkk nañ ci ay bokk ay proches ak ay amis mu nekk loo xam ne tiis bu métti la bala ñu seetloo fan yi li am ci ay décès euh, ëpp na dayo am am na bëkki dem rek ñuy wax ni rien que cimetière Yoff ñu ngi fa dénombré plus de cinquante rob yoo xam ne ñu ngi ko donc mu nekk tiis boo xam ne nii suñu la dal waaye nag xam nañ ne tiis bi ci àdduna bi yëpp la dal loolu mooy jàngat bu njëkk beneen bi ci topp mooy damay permettre tamit ma jaajëfal les forces de défense et de sécurité le service des jeunes les services de santé ki actuellement font un travail remarquable nga xamante ne ni daanaka dañoo déborder donc ñooñu ñu leen bañ a jaajëfal suñu ñëwee ba toll fii waaye jàngat bi nga xam ne moom lañ ciy def de manière générale mooy ñun dañuy def li ñuy wax SWOT analysis SWOT nag boo ko déggee mooy bu amee benn xew da ngay jàngat les forces les faiblesses les opportunités et menaces crise bi ni ñu ko songee am na pàcc yoo xamante ne ni am na solo waaye yi si gën a lajj ak li nga xam ne moom moo si gën a nekk tooke ak loo xamante ne ni sénégalais yi gisul si seen bopp ndax dañ dem ba navire amatul capitaine loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu gën a jaaxal ñun au niveau waaye euh, terewul ñun dañoo nekk un parti républicain ki ñu jiite di président Thierno Alassane Sall nga ne c'est un patriote dafa nekk koo xamante ne nii dañuy jàngal li nga xamante ne ni mooy une démarche républicaine mooy da xool les causes quelles sont les conséquences après nag nga def ay jàngat et surtout proposer des solutions. Mm-hmm. te loolu ñu ngi si woo acteurs politiques yëpp xam naa bu ñu wéyalee si kàddu yi ak ci waxtaan yi dinañ ci àgg. Mm-hmm. alors euh, damay dellu waat rek ci li nga xam ni euh, moom laa la doon laaj mooy responsabilité yi nga xam ni au début de la troisième vague gis nañ ko euh, ñu ku ne di di wax que ni en tout cas ñi ngi joxeñ baaraamu tuuma lépp luy politicien fii ci biir Sénégal ndax gis nañ ku ci nekk yaay noon vaquer sa occupation dem sa ay activité et am ñoo xam ni kenn la ñuy joxeñ baaraamu tuuma mu di njiitu réew mi à travers ses tournées économiques et est-ce que vous partagez déjà euh, cette position. on partage cette position effectivement ñenn ci acteurs politiques yi du ñëpp parce que mënuñoo jël acteurs politiques yëpp euh, def leen ci benn bouse ñun au niveau de la République des valeurs ba pandémie amee ba léegi a été très républicain on a été très respectueux et soucieux des mesures barrières waaye président de la République tournée boobu ñu waxoon ñu ne tournée économique la mën nañu wax ne doxantu la amul benn tournée boo xam ne a transporté le bétail électoral jël xamante ne ni xëy na neexal nañ leen dégg nga coowal xaalis boobu noonu ñu yóbbu leen fu nekk mu dem fa dem Fuuta dem fu nekk donc tey pandémie dëgg la pandémie mondiale la waaye bu fekkee ni toll na fii président de la république Macky Sall am na si responsabilité boo xam ne responsable bu mag la ak yenn acteurs ndax eh, booy dingle càngaay day fekk nga set waaye mënoo dingle càngaay ba pare yow si sa bopp ngay dem doo respecté na bu leen dem seen famille donc loolu yëf caaxaan la loolu moom mooy jàngat bi nga xam ne def nañ ko donc on partage effectivement cette position président il n'est pas responsable à 100 pour cent mais à 90 pour cent il est responsable parce que nag moom moo jiite gaal gi te il pas donné le bon exemple donc ci loolu je pense qu'on va rester intransigeant beneen jàngat bi nga xamante ne nii def nañ ko moom mooy gis nañ ni pandémie bi ba mu amee ba léegi dafa am ay problèmes yu bëri yoo xamante ne nii woon nañ koo sóor sóoruñu ko Sénégal boobu léegi yaa ngi dégg ñu naan 50 fi mu ne nii dégg nga ñu wax ni bouteille d'oxygène dafa manqué te kenn ku am benn cas boo xam ne cas sévère la pour mu am bouteille d'oxygène il lui faut deux a trois bouteilles par jour boo ko xaymaa soixante dix mille par loolu amul benn poche boo xam te ne nii poche u baadoola yi nga xam ne ñun ñoom la ñuy waxal te ñun ay baadoola lañ poche yu baa doole yi ñoom mën nañ ko satisfaire mu nekk loo xam ne problème ci biir pandémie tamit gratuité bi nga xam ne euh, am na ci au niveau euh, de structures sanitaires privées est-ce que loolu aussi nekkul à saluer et mun na aussi euh, alléger au moins li nga xam ne moo di souffrance su certaines personnes structure privée yi ay jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu waaye structure privée yi bul fàtte ni tey par rapport 14 millions de sénégalais structure privée yi ñëpp amuñu doole pour dem fa même bu fekkee ni c'est la gratuité des soins ñoom mënuñoo jël ñëpp en charge tey structure privée yi ñu demee bañ leen di waxal loolu on les waaye c'est parce que l'État en quelque part a fait a, fait échec parce que État moom moo responsable de la politique publique de la politique de santé donc tey au niveau des hôpitaux État war jël ay matukaay ak ay dispositifs yoo xam te war nañ leen permettre ku feebar nga dem faju sa xel dal waaye dégg nga fi nii nit ñi ngi njëkkante bouteille d'oxygène yi ba mu yàgg ñu ne ñoom réquisitionné nañ bouteille d'oxygène yi dégg nga li ñaa wax fan yi wax sànq si sa sa si sa revue nee na matériel médical bi ngi koy jaay structure privée yi c'est on mais, mais on est dans une ñi ngi quand même ci benn enquête parce que euh, ce n'est pas des ce ne sont pas des faits yoo xamante ni pour le moment euh, amagum nañ ci firnde parce que bu plainte jubee et que le ministère a carrément euh, démenti genre pour bu poser plainte ce qui veut dire que ni quand même euh, pour yooyu les faits euh, àndu ci waxul ni lu am la est-ce que aussi duñ ci demee avec une certaine. Euh, dëgg la ñun au niveau de la République lépp lu am dañ koy jël avec des pincettes. on a mm-hmm. on fait confiance on laisse la justice faire son travail waaye am na loo xam te ne nii connaissant l'homme connaissant son sérieux sa rigueur ba pare c'est pas n'importe qui si si dëkk bi c'est une structure boo xamante ne ni moom bi mu jiite taxawal na ko mu bokk ci première structure privée yi c'est un self-made man il s'est fait lui-même ku mel noonu nag am fi njaboot nekk mag nekk kilifa am na wax ne du ko wax ci mboosoor loolu mooy la première chose donc du ñu wax ni dëgg la wala dëgg waaye wax c'est très grave waaye loolu li tax muy suñu attention te ñu wax koo mën a gëm sénégalais yi gëm ko mooy président li mu def wax naa la sànq booy digle cangaay day fekk nga set yow da ne dañoo nekk pandémie Sénégal mi ngi manqué ay respirateur am na ay jeunes yu nekk fee ca Thiès boo leen fàttali ko génne fi ay respirateur président waxu ci subventionné wul leen jàppale wul leen donc loolu nekk na lu doy waar yamut ci loolu Sénégal li ñu am bàyyiwu leen ko mu wëlbati ko di jënd avion à 60 milliards kooku kooku bu fekkee ni tey dañ ko juñ tuuma ne équipe ak ministre de la santé dañ leen juñ ay baraamu wax ni ah ñoom kat njort nañ ni dañoo dem pour euh, salfaañe wala jaay jaay matériel euh, médical ça fait partie des priorités euh, avion yooyu nga xamante ni ñoo ko jël bon comme ni ñu ko waxee est-ce que ça fait pas partie est-ce que ce n'est pas prioritaire loolu dañuy nax sénégalais yeeg sénégalais yi ils sont conscients c'est pas prioritaire dañoo nekk jamonoy pandémie mu déclaré ne on est en guerre yaa ngi dégg guerre kay da nga koy da jël say matériel ak say outils ak say moyens jëmale ko si li nga xamante ne ni moom mooy les moyens de l'État pour ñu def ñu def ay hôpital c'était bien mm-hmm. avant xamoon nga ni pour faire un un hôpital moderne boo xam ne sa acceptable il faut 5 milliards terre 1000 milliards dafa tàggatémbe demut fenn Dakar Arena bu ñu si baskettee ren du ñu si baskettaat déwén arène nationale bu tawee dafay inondé dégg nga coow li daaw ba mu tawee si ginnaaw arène ñu demoon leen nangam. centre international de conférence dem ñaajo at baab lañ fay organiser conférence boo xoolee si xayma presque 2000 milliards yoo xam ne président mobilisé na ko jurutul koom Sénégal pour loo xam ne dina indi Sénégal dara hôpitaux yi amuñ nit yi mënuñu faju boo xoolee li nga xamante ne nii mooy abri provisoire école gis nga li nga xamante ne nii moom moom moo ci xew plus de 6000 abri provisoire tabaxuñu ay école tabaxuñu ay hôpitaux yemuñ si bañ tabax li Sénégal yi am dajale ko as seen lempo mu jël ko dem jënd si avion te xam na ne mandaam léegi mu jeex boo jëlee premier ministre Canada jàng nañ ni ñoom seen avion bi nga xam ne moom la ñu am presque depuis 1980 wala 1982 Canada moo ñu ëpp doole foofu mën nañoo dimbali mën nañoo sar ñu nekk dëkk bu nekk bu ñuy wax Sénégal jamono ji am na nit yu bëri yoo xam te ne ni j'ai très mal et la République des valeurs a très mal parce que l'heure est grave lu sérieux la ñuy waxtaanee. c'est une question de souveraineté nationale nit yaa ngi dee un avion de de de de Canada ak Sénégal. et tout ba pare c'est-à-dire les attention peuvent différer. attention comparé wuñu ak Canada dama ne. Canada bu dem ba bu demee ba avion mën a vingt ans trente ans quarante ans mu entretenir gisuma raison bi war a Sénégal en l'espace de d'une dizaine d'années mu jënd benn wala ñaari prix. est-ce c'est le même type aussi. c'est le même boo ko jàngatee c'est c'est des avions yoo xamante ne nii soit Boeing lay doon. A380 Airbus A380 wala Boeing 767 wala 737 donc bu leen fàtte ni président Thierno Alassane Sall c'est un expert en aviation donc ñun li ñuy wax dañ koy xam dañ koy seet on n'est pas léger lépp loolu ñuy wax dañ koy dañ koy teg ci balance li ñu bëgg donc mooy li nga xam ni moo fi nekkoon euh, ci avion njiitum réew mi doon ko utiliser di ci dem ay voyage et mënoon na ko utiliser mënoon na xaar parce que dañoo nekk si jamono yi. amul benn défaillance boo xamante ni nekkoon ay risque pour euh, pour le chef de l'État. ma ne mu ciy voyager di si dem. def ay déplacement bàyyil waxu Canada nga dem Maroc bii ñu jege. xamoon na ni buuru Maroc bi nga xam ne buur la moom sax buur la wax la président nga xam ne mandat la am moom buur la mandat indéterminé la moom bu waa voyager Royal Air Maroc lay jël gars yi dañuy dindi siège yi nekk si Royal Air Maroc vol aménagé ko espace espace bi moom buur bi mu jël avion bi su yéegee ba wàcc su ñëwee gars yi delloo si chaise nit nit yi jël avion bi lan nga wax ci loolu li ñu bëgg wax foofu on est très clair et on est le président de la République ne prend pas au sérieux les problèmes des Sénégalais boppam la fi nekkal te loolu nekkul loo xam ne lu rafet la nit yi bi ñu la falee da ngay def li nga xam te ne nii moom mooy seen ay njoxtu wala mooy seen soxla nit yaa ngi dee ci mu ne nii hôpital Dalal Jàmm démb xam nga lu fa xew na kenn ko def benn vidéo boo xoolee di nga gis si internet bi lal yi dañoo nekk di inondé mandaal yi dañoo tëdd si ay lal yu inondé donc tey on ne voit la nécessité d'acheter un avion de commandement présidentiel on ne voit pas la nécessité aujourd'hui également au-delà de l'avion présidentiel ndaga bi nga xam te ne moom le président bi nekkee di def ay tournée di def ay mbir in yokk feebar bi même bu fekkee feebar bi pandémie euh, mondiale la ñun kay li ñuy def au niveau des de la de des on appelle à la conscience ñu ngi wax sénégalais yi ñu respecter les gestes barrières ñu wax sénégalais yi ñu dem wu te fi mu ne nii xëy na nag ñu doon wax théorie du complot yëpp xam nañ ni nekkatul théorie du complot mais li ñu mën a jàpp te mu wër te mu leer mooy fi mu ne nii dañoo toll foo xamante ne nii c'est une crise mondiale démb président Thierno Alassane Sall il en a largement parlé et il a reçu un plébiscite au niveau de de Twitter et de la presse. parce que bi ñu gisee sax li nga xam ni moom la publier euh, foofu bu ñu doon jàngat day mel ni yéen troisième vague bi ngeen gën a jox cër ngeen gën a gëm. que li nga xamante ni moom moo di première vague bi c'est-à-dire engouement bi nga xam ni moom ngeen ci am ak it li nga xam ni moom mooy bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel troisième vague bi ak les mots en tout cas et propos qu'il euh, qu'il a eu à utiliser dafay mel ni bii moom ngeen gën a ñaax population yi ki que ñu euh, gën ci bàyyi xel que peut-être les précédents. Sénégal mooy ñun ñun ñooy Sénégal looloo tax ñu gën see responsable xam nañ ni tey troisième vague bi li muy yóbbu ci ay nit li muy yóbbu ci ay ndaw ëpp na dayoo. fi mu ne nii ñun njorte nañ ni chiffres yi nga xam te ne moom lañ joxe sax am na yu bëri yoo xam ne xamuñu ko ndax ñoom si seen communication juum nañ juum yu doy waar yoo xamante ne nit yi gëmatuñ sax ni euh, dañoo war a dem vacciné wu wala wañ dem gis nga fi nii dañoo tiit bu Sénégal yi tiitee nag njiitu réew mi moom dalul leen baax na ku mel ni président Thierno Alassane Sall jël ay responsabilités dem dalal leen. juum yu doy waar comme comme yan. bari na si juum yi nga xamante ne juum nañ ko ñoom par exemple ministre de la justice lan la fi wax waxuñu nit yi dem ngeen vacciné wu ministre de def benn Euh, texte publié ko ne moom il a chopé le virus malgré que moom dem na vacciné il a chopé le virus boo fekkee ne wax nga lu tiital nga Sénégalais parce que waxuñu ne vaccin bi dafay annuler carrément les les les le fait que yow nit nit ki mën nga contracter la la maladie waaye na bàyyi nit yi dem vacciné wu mënoo wax nit yi loolu ba pare nga nga nga tiital leen gannaaw ba nit yi tiitee nga ne leen malgré vaccin kon mooy vaccin bi jëriñu dara kon lu ñu doy de vaccin mais loolu tiitalaate la wala c'est-à-dire la réalité des choses parce que aussi il faut être réaliste lii moo am lii la ñuy daal di fësal le vaccin et la mën na euh, atténuer virulence bi mais aussi waruñu wax population bi que euh, am naa ko rek du ko daal di fësal parce que aussi il faut savoir euh, na nu ñu moom mais pour man le lu mu def c'est plutôt euh, wane euh, réalité des choses yi nga xamante ni moom moo am ci ci ci vaccination bi. dëgg la waaye njiit du chaque jour lu lépp loo xam te ne ni xew na da nga koy wax parce que tey booy def communication xoola impact communication bi booy def communication xoola yow ban population ngay waxal ak population la mooy seen état d'esprit du moment léeg-léeg dëgg dina am dina xew nga différé ko ñun loolu la ñu wax on appelle à la responsabilité li mu def woo koo def waaye li mu def woo koo si jamono ji. parce que nekk ñu jamono yoo xam te ni dañoo tiitalaate wala ñuy xoqalaate wala du dutale duñ ko nëbb xam nga dëgg kenn du ko nëbb ku ñu xam-xam ne ñun nitu dëgg lañ parti dëgg lañ duñ ko nëbb waaye dañ ne communication bi na mën a gën a ñoŋ waroon nañ ko gën a mën a sellal waroon nañ ko mën a gën a toppatoo ba nga xamante ne nii du am effet bi bi mu am parce que la chose elle est simple bu communication amee ñëpp wax ci rek c'est parce que am na nit yi benn appréhension wala compréhension boo xam ne ñoom am nañ ko ci ñun loolu mooy li nga xamante ne mooy suñu position au niveau de la république des valeurs bëri na yoo xamante ne war nañ ko def li tax ma ne dañoo laaj mooy ñun on est venu avec des propositions tey gis nañu ñoom dañoo woon ubbi ay centres de soins ak ay centres de test rapide sénégalais yi ñu si ëpp si ñoom dañoo corona waaye du ñu wax ni dangaa corona lu mooy dañ ko dañoo bàyyi ba nga nekk benn phase terminale wala nga nekk ko xam ne sonn nga wala nga xam ne am na loo yëg sa nga dem dépisté wala nga dem ñu ne la positif nga mais tey Euh, euh, prévenir prévenir vaudrait même prévenir que guérir waroon nañ dem sur place def ubbi ay centre de soins sénégalais bi dëkk Kabada sénégalais bi dëkk Saraya sénégalais bi dëkk Koupentoum ñooñu ce sont des sénégalais à part entière à part entière Sénégal Sénégal lu ñëpp la loolu tax ñun ñu gis ni loolu nga xam ne waroon nañ kaa def defuñu ko mooy ouverture des centres de soins. Mm. beneen bi mooy on pouvait faire recours à l' informatique président mi ngi bi nga xam ne def na ko recours à au moins. réserver des lits d'hôpitaux ñoo xam ne tel hôpital bi tel hôpital bi moom moo am boo amee cas ñoo xam ne clinique bi am na tant de lits yu fa disponible mais ñu communiquer ko nit yi di xam ñu communiquer régulièrement ñun ce sont des solutions innovantes yu méngoog jamono moom la leen di indil donc ñu nekk ñu di critiquer mais c'est une critique positive c'est une critique constructive dans la mesure où boo amee lu doxut dañ naan lii doxut ñu duut baaraam si loxo doxut ba pare teg ay ay solutions ci loolu tamit mënoon nañ par exemple mettre en place ay postes mobiles na leen déployer on est en ñu dem si zone yi nga xamante ne ni ñoom ñoo gën a réculer hmm? dem si euh, lu lu demee ni Nioro ah ma ma nuyu sama mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu noonu. Hmm. dem si yenn zone yi nga xamante ne ni oto du fa am du fa mën a dem ba ki dem gis nga ni ñu doon def bac si benn centre boo xamante ne ni côté Fouta la nekk. taw bi dafa bari ba mënuñoo jéggi sax pour dem seen centre yi mënoon nañ déployer armée ñu dem foofu noonu dimbali nit yi. donc bëri na loo xam te ne ñoom war nañ ko def te defuñu ko élèves polytechnique yi amoon sant ak respirateur yooyu noonu kenn waxu ci encadré wuñu leen bañ ko waxee ak léegi def na joon benn weer ñu toog di seetaan finalement où va ce pays ñun lan lañ bëgg dañ tàllal loxo di ñaan tout le temps mais mais depuis euh, 2 mars 2020 ak léegi donc bu ma dégloo ci say kàddu mooy gisoo euh, gestion boo xamante ni bu positive la boo xam ni mën ngeen ko saluer ne serait-ce que benn parti ngeen ni ah fii état bu Sénégal daal dina fay am foo xam ni def na fa quand même des avancées boo leen amee proposition wala suggestion yoo leen di def euh, ci beneen pàcc bi ngeen daal di koy def parce que lu ñu gën a seetlu euh, mooy benn genre discours yoo xamante ni euh, dafay mel ni daal day xaw a jege politique et pourtant dañuy xaw dañuy nekk ci situation boo xam ni on s'attendait beaucoup plus à benn à ce que politique bi def benn bloc. pour lijjanti li nga xam ne mooy crise bi d'abord et après xëy na mbirum euh, partisan yi daal di daal di ñëw. xam nga dëgg suufeel ma te néew na ba mu amee moo ma gënal fuuf fen yëkkati ma te néew na ba mu amee parce que boom xam-xam bu mag bu wax loolu nee na dëgg du ko suufeel fen du ko yëkkati ñun li ñu jàpp mooy bu dëgg jotee dañ koy wax président bu fekkee ne fi mu teg tànkam nooyul te si erreur ak guuta lay dugal Sénégal dañ ko koy wax président bu defee lu baax dañ ko koy wax si crise bi am na ay points yu positif waaye points yu négatif yi. dafa ëpp ëpp dayo ba nga xam te ne nii day suul point yu positif boo fàttali ko ba pandémie doogee commencé ñun président Thierno Alassane Sall yàgg na cee wax ba pandémie doogee commencé qu'est-ce a fait on a donné des solutions solutions yu ëpp yooyu noonu moom le président de la République toll euh, topp def nañ fi confinement bu dee yaa ngi koy fàttaleku def nañ fi mesure barrière yaa ngi koy fàttaleku def nañ fi couvre-feu yaa ngi koy fàttaleeku jël nañ yenn mesures yi waaye loolu ay mesures yu ñu saluer la. donc yéen déglu na leen quand même. déglu nañu parce que nañoo bañ a déglu parce que ñun ak moom benn point commun lañu am muy Sénégal te ñun Sénégal kat nag moo ñu ñor n'est-ce pas waaye point yi négatif yi nga xam te ne ni daf koy defee xel xalaatu boppam 1000 milliards yi ñu dugal ko ci fonds de riposte pour la Covid fan la jaar posé naa la question bi mënoo maa tontu que tout simplement président de la République mënul wax Sénégal yi fan la dugal dégg nga ci ay luubal. 1000 milliards yooyu ñu wax Sénégal président waxoon na 2017 ne ñun am nañ autosuffisance en riz moom la ñu ceeb muy dem di inauguré ceeb bi xam ne dafa dégg doy Sénégal dafa toll ci souveraineté économique pour ñu am suñu indépendance il faut ñu am suñu souveraineté économique moo tax de la République des valeurs suñu programme mooy cinq axes prioritaires yu am solo yoo xam te ne ni ñu ngi koy présenté te ci biir loolu ñi nga xam ne ñun solution ñuy proposé ce sont des solutions structurelles Sénégal boo ko jiitee ak boo jiitee dëkk mënoo def mbir yi sur des coups de baguette magique da nga koy def parce que sénégalais fi mu ne li ñu tal mooy lekk ak naan ak faju nga dem indi leen ay tali c'est bien donc ñun on n'est pas des nihilistes waaye li gënoon mooy sénégal yi seen xel dal ba pare ndax ñàkk xel bu dal bi moo tax keroog ba ki dem gis nga ba mu amee lu ila xew dafa am ay ay émeute dafa am ay émeute nit yi dañoo xeex ba mu leen tëjee nit yi il préfère sortir jàpp maladie bi dee plutôt que ñuy nekk seen kër donc ce te mauvais choix yooyu du ñun ñoo ko sénégalais yi ñoom ñoo ko nous sommes la voix des sans voix nous sommes la voix de de de ces Sénégalais à part entière donc n'êtes pas favorable ci ñu daal di indiwaat yenn restrictions yi nga xam ni moo fi amoon lu ci mel ni ay couvre-feu euh, xoolaat aussi déplacement bi transport yi et tout euh, au niveau des régions et tout euh, est-ce que yéen favorable ngeen à que ñu indiwaat yenn ci ay restrictions yoo xamante ni lors de de la de première vague moom lañ fi tegoon. bien sûr on est favorable mais on n'est pas favorable pour indiwaat yenn restrictions yi. comme yan par par exemple tey ñu def couvre-feu couvre-feu defoon. xam nga bu bu amee mesure il faut ñu évaluer mesure bi mesure bi def nañ ko lan mooy impact bi nan la ko Sénégalais yi gisee c' est très simple bañ defee couvre-feu bi nit yi bañ sonnee dañoo fipp kon couvre-feu bi baaxul fi mu ne nii feebar bi léegi la gën a garaaw ko avant on est d' accord. Mm-hmm. donc ñun jàpp nañ ni woo ñoo def couvre-feu bi jamono ji exemple li ñuy woo mooy li ma la wax sànq respect des mesures barrières Sénégal bu nekk xam ne il est responsable d'un autre Sénégalais Sénégalais boo xam bu nekk xam ne il responsable son prochain li ñu woote mooy. ñu dem vacciné wu li ñuy woote mooy ñi daan wax théorie du complot xam ne fi mu ne nii théorie du complot amatul. et que feebar bi feebar bi déjà il s'est vacciné pour au ah moins. ah oui il s'est vacciné. Mm. je vous invite à regarder la page de la République des valeurs ma siy invité Sénégalais yépp suñu li leader il a été l'un des premiers à se vacciner nous on est consciencieux te nous on est très responsable avec nous-mêmes wax naa la sànq sama njëlbeen booy dégle cangaay day fekk nga set président Thierno Alassane Sall il s'est ci vaccin yu njëkk y' a des photos à donc ñun duñu ñu woote ne vacciné wu leen vacciné wu leen ba ñun suñu bopp du ñu vacciné wu donc man li mu la bëgg wax foofu mooy gis nañ ñu gouvernement bi ñu ngi def ay jéego on est très clair on n'a pas de problème là-dessus waaye un train qui vient à l'heure ñàkk ñëw heure loolu mooy événement mais c'est pas que muy ñëw à l'heure président jege yu mu def daf ko war parce que moom lañu dénk la république il doit prendre soin des sénégalais il doit prendre soin de notre système de santé de système éducatif mais par contre nous on attire l'attention plutôt sur li nga xamante ne ni moom def ko te woon na ko def donc war na tabax ay li euh, ay hôpitaux yu doy defut ko waroon na joxe ay lits ñu yokk suñu capacité première vague boo mu amee ba léegi ñu ngi naan cinquante lits cinquante lits capacité bi tax koo yokk noonu. pourtant am na ay CTE yoo xamante ni yu ci bëri mettre nañ leen en en place loolu aussi je pense que am na ci ay avancé yoo xam ni euh, wane nañ ni ci biir Covid bi moonte donte amoon na défaillance avant ci Covid bi am na yu bëri yoo xamante ni jël nañ ko ci ay initiative pour comme comme yan CTE. bëri na. comme jox ma exemple benn rek. bëri na doo mën a wax bëri na moo tax ma ne xam nga mënuma lim mais dema ne euh, bëri na ay CTE am na CTE yoo xamante ni euh, teg nañ ko pour au moins gën a étendre li nga xamante ni moom mooy ak yu patients yi. CTE yooyu ni ñu ko tegee yu si bëri nekkut loo xamante ni lu ñu mën a jàpp la Sénégalais yi nañ bàyyi di leen nax te di leen wax dëgg ñuy communiqué ak ñoom ñu sincère ak ñoom Sénégal dëkk bu néew doole la ñu xam ne dañoo néew doole dépense de prestige ay oto ay ay ay avion nekk si loo xam ni ne xawaare la loolu dafa weesu nit yi dañoo xiif nit yi dañoo sonn nit yi ñu ngi dee ci hôpitaux yi l'heure est grave donte am na jéego yu bëri yu président di def ñu ngi koy jaajëfal loolu moom la war waaye nag na gën a yokk jéegoom na gën a góorgóorlu parce que li ko defee moom moo ëpp li def waaw ñu ñu taxaw ci campagne de vaccination bi parce que gis nañ ni atteindre ñu euh, vraiment euh, suñu ay objectif ci wàllum pourcentage pour personnes yi ñu war a vacciner euh, jamono ji lan ngeen yaakaaree ni moom la ñu war a doxalee li nga xamante ni moom moo di vaccination bi jiital ndaw ñi wala comme au début gën a prioriser mag yi wala yow ni nga ni nga gisee en tout cas jamono ji ñu koy doxalee li lu jëm ci wàllum campagne bi et jàpp ngeen ni c'est c'est c'est la bonne piste. fi ne nii dafa am loo xam te ne ñun dañ ko def réflexion au niveau de la république des dañoo jàpp ni mbir bi série na série boo xam te ne dañoo am benn comité scientifique am benn comité d'exécution ak benn comité de suivi et te loolu gisuñu ko ci mbas ak mbas bii nga xam ne dugg nañ ko muy Covid 19. parfois baax na su ñuy def ay ay actes ñu koy évaluer te ñun jàpp nañ ni au niveau de la république des valeurs ñi ñu war a prioriser mooy ñi feebar ak ñi nga xamante ne ni dañu am ay cas de mobilité parce mbir bi du ci. tranche d'âge ñu mag ñi ñu ndaw ñi ak ñu nangam xale ak mag jamono ji bu njëkk di gis nañ ni mag yi ñoo doon gën a dem fi mu ne nii ndaw yi ñooy gën a dem donc du si âge nañ xool ñi am comorbidité parce que il faut ñu ñu cartésien ñan ñoo si gën a dem ñi am comorbidité ñi nga xamante ne nii dañu am asthme diabète hypertension wala feebar yu ni mel suñu amee covid dañuy gaaw a dem kon ñooñu la ñu war a privilégié vacciner leen parce que vaccin yi doyul te doxalinu cuune kese la ñuy def dégg nga fii keroog ministre de la santé lan la wax indi nañ deux euh, vaccin Sinopharm nangami dose Sénégal dañ ko ko offrir ba mu yàgg mu dindi titre boobu effacé loolu sax dafa ñaaw ñu ne Sénégal dépensé na 2 milliards alors que ne moom nee woon na dañ ñu koo may lu day ni kilifa bu day noonu yow nga ne dañ ñoo may ba mu yàgg nga ne 2 milliards askan ni seen xel du dal noonu président waxoon na fi tamit sénégalais bu ñu bëggul vaccin yi man dinaa jël jox ko yeneen dëkk njiit da jàng muñ président woo ñu ko jàngal muñ ku bot bukki xaj boobu parce que tey sénégalais comme xale lañ doon peuple comme xale la dangay naxante moom comme disait Kant la masse est canaille waaye tey bu demee ba wax loolu noonu dañuy gis ni kii teguñu fenn parce que peuple mën na juum waaye njiit li tax ñu tànn ko c'est par sa clairvoyance d'esprit par sa vision par son leadership waaye loolu mu wax tamit erreur de communication la du dëgg parce que xale bu ndaw boo amee noo defee defee moom moo defanteeg yow leneen li si topp moom mooy vaccin xam nañ ne doyul au vu de tout ce qui vient d'être énuméré li gënoon a responsable mooy ñu waxtaan ak comité scientifique yi laaj leen orientation président Thierno Alassane Sall dans son tweet qu'est-ce qu'il a dit il est temps qu'on confie l'affaire de la pandémie à des professionnels on a l'impression que c'est du pilotage à vue waaw dañoo am impression que ni ñun dañuy dañuy dañuy dañuy mouvoir au au euh, si si et marée contre tempête wala yooyu noonu dañuy dañuy jéem a xool nan la ñuy adapté on doit avoir un plan très clair de communication un plan très clair pour la pandémie ñi nga li nga xam ne moo jëm euh, jamono ji euh, ci c'est-à-dire ñi ñu ko confié confié yéen da ngeen seen xel dafa dalu si ñooñu. ankañ suñu xel dal na si ñoom. donc lan lan ngeen bëggaat de li ñu bëggaat de plus mooy président déglu leen. parce que xam na nit mën nga ko jël comme conseiller mu lay jox ay ay ay ay conseil waaye c'est le président de la République c'est le chef de l'État c'est le chef chef des armées du moom mën na leen déglu waaye mën naa bañ jël décision yi nga xam ne moom lañ ko wax ñun waxuñu ni au contraire wax naa la sànq dama leen félicité foofu laa njëkkee timis bu ne sénégalais yi war nañ taxaw seen palanteer ñëpp tàccu ñu sargal suñu docteurs yi ak suñu médecins yi ndax bu doon ñoom bul woon ñoom kon làmbaay dana gën a ñaaw ay jàmbaar lañ malgré le peu de moyens ñu ngi def un travail remarquable amul dara lu leen wax professeurs yi nga xam ne nii dañoo nekk dans les instances au organisme international ñi ngi jël ay xalaat di ko président mais dañoo am am impression que président da parce que ñun kat nag ay sénégalais lañ ay néew du doole lañ ay baadoole lañ te dañuy déglu information tout temps information yi boo koy déglu nga déglu émission yi nga am ne moo jëm ci Covid ak professeur yi fa ne ak recommandation yi def man damay am impression que ni moom amul cellule de communication buy déglu ñooñu pour ne serait jël information yi wala amul ñoo xam te ne nii xëy na ñi ko jege dinañ ko jox la bonne information wala ñooñu bu ñu koy jox la bonne information kon du leen déglu. est-ce que comme certains yéen da ngeen yaakaar ni euh, pandémie ko xaw a politiser. dañ ko politiser kay comme ni ko yaakaaree ñenn ñi. am nañ ci yaakaar am nañ ci njot pande bi politiser ko moo tax jëluñu ko au sérieux parce que bu ñu ko jëloon au sérieux tey ñëw naa indil naa la ay solution structurelles yoo xam ne bu ñu ko defee Sénégal mun na gën a génn su su mais mais ana foo fooy génnee aspect euh, politisation boobu ngay wax euh, ana lan moo koy firndeel que ni euh, dañu politiser pandémie bi. bari na ci communication bi communication bi n'est-ce mais communication bi si si si naka c'est-à-dire communication wala li nga doon wax tout à l'heure euh, ci ci wàllum euh, vaccination bi li liñ ci jot a wax et tout et pour man loolu laaleewul dara ak politique. dañoo jëm si fànn yu nekk wax naa ko sànq xam naa ne du ma si ñëwaat waaye communication bi déjà dañ si laaj loolu wax naa ko du ma si ñëwaat waaye ci wàllum politique yow nan nga mën a concevoir nga mën a comprendre ñu nekk jamonoy pandémie président dem def doxantu di dem def tournée te yow nga ne respecter les mesures barrières. éviter les rassemblements doon ñun ñoo ko wax moom moo ko wax Sénégal yëpp conformé wu ci loolu moom mu génn ànd ak ay convoi dem def ay ay ay meeting ah nga xam ne am na ñuy respecté mesure barrière am na ñu ko dul respecté parce que mënul garantir ñëpp dinañ respecté mesure barrière. loolu moom boo si joxañee euh, nguur gi joxañ ci itam euh, opposition bi. wax naa la ko sànq oh, xam nga. voilà suñu waxee benn wax. depuis le début ak sama discours ak ba ñu commencé émission bi dama bëgg nga peese ko ba léegi changé wu sama discours dama la waxoon sànq ne. président c' est le principal responsable pas à 100 pour cent mais pour cent ma tegal la ni si ak ñenn si opposition bi parce que wax naa la ñun dañoo nekk parti bu diggu dóomu parce que dañoo nekk si dëgg bi bu opposition defee dëgg ñu wax ko bu président defee dëgg. ñu ko ni nga def baax na jaajëfal ñu ne dafa mel ni ay alliés ngeen. yoo xam ne dañuy làkkatu parce que souvent. bu ñu gisee seen ay position naan est-ce que du euh, bi la ñu nekk di lëre mais au contraire loolu lii mooy position républicaine mooy bu dëgg taxawee nga wax ko. président Thierno Alassane Sall dafa wax je cite du côté de la vérité quel que soit du bokk bi bi bi dëgg boobu nekk bu président defee lu baax dañ koy wax ni président li nga def baax na ànd nañ ci ak yow ba opposition parce que ñun wañu président yi di tirer ci moom waaye nag ànduñoo ak moom dafay leer président de la république mënuñoo ànd ak moom parce que si opposition lañ boobu waaye nag terewul même son noonu su defee loo xam ne lu baax la da nga war a gërëm parce que il faut pas ni nihiliste ñun noonu la ñu yàlla loolu lañ xam. mais boo nekkee ci opposition aussi di opposé wu à l' est ce que loolu aussi. opposé wu ñu à l' opposition. s' oppose mais boobu ngeen di jël. attention moom laa la wax opposition bu fekkee ne defut dëgg dañ leen di wax ne li ngeen def baax na. est ce que l' opposition c' est <laughs> votre principe. am léeg-léeg déedéet ñun opposition lañ bokk mais opposition bu juumee ñun dinañ ñi ngi ñaan tal tout le temps ñu nekk si dëgg ba nga xam ne dinañu mën a suñu tànk foo xamante ne duñu duñu juum am na crise yu bëri yoo xam ne xew na fi du ma si dugg mais ñun dañu am benn position boo xam ne moom la ñu mës a respecté nest mhm. te finalement bañ demee ba ci biir ay activistes ak yeneen nit gis nañ ni rejoindre nañu ne kon ñun li ñu waxoon suñu postulat bu njëkk moom mooy dëgg donc ñun dañoo taxaw foo xamante ne nii moom mooy taxawaayu dëgg dañoo taxaw foo xamante ne nii dañ jàpp ni sénégalaises ak sénégalais yiy déglu bu ñu nekkee suñu place loolu mooy suñu position que ça côté de l'opposition que ça soit du pouvoir am nañoo pouvoir bi. ñi nga ànd ak kujje gi waaye dëgg fu mu ñu fekk foofu la ñuy bàyyi. Mhm. Euh, donc en tout cas est-ce que euh, genre position yooyu ñu di jël dina nekk loo xamante ni dina yombal mbirum coalition euh, maanaam li comme li ñu soxla euh, ci euh, li ñu dëgmal mu di échéance yi ci mel ni élection locale yi et est-ce que foofu dinañ mën a xaar république des valeurs daal di dem coaliser ak yeneen parti yi nga xamante ne ñu ngi nekk au sein de l'opposition maa ngi lay fàttali ni on fait partie du CRD le congrès pour la renaissance démocratique Abdoul Mbaye ACT ci la bokk Mamadou Lamine Diallo tekki ci la bokk président Thierno Alassane Sall RV ci la bokk Pape Sarr LD Debout ci la bokk professeur Bouba Diop taxaw tem ci la bokk juge dem bu bu bu bu ensemble ci la bokk professeur Kitane ci la bokk ak ñeneen kangam yoo xam ne mel noonu ak waa jot na mais mais tuddaloo ma fi parti yi nga xamante ni ce sont des. partis quand même ni ce euh, sont des partis d'opposition si mais dégguma fi dégguma fi Pastef dégguma fi euh, PDS par euh, euh, voilà soxna su kaay ma laayee la biir àdduna ñi bokk teen ñooy laxasooy ay goj loolu Olof Njaay wax parti yooyu yëpp ñi ngi waxtaan ak ñoom te fañee dégg nga ni ba ñuy wax voté code pénal ak code de procédure pénale ba ñuy dëtmal code électoral bu bees bi def nañ benn dajaloo bu yaatu boo xam ne waa opposition yëpp ñi ngi fa nekk kuy dem ci xare doo wax sa stratégie li ma mën a wax am na loo xam ne cee dugg waaye ñun nii lañu àndagal pour le moment te ñi ngi njort ni te loolu c'est une exigence nationale une exigence en tout cas politique bu Sénégalais yi di xaar opposition yom ñoom ñu ànd opposition amul différence suñu biir même si on a des des idées divergentes te loolu mooy respect de la démocratie loolu mooy tax démocratie mën a jëm ci kanam ñun ñëpp mënuñoo bokk xel waaye ñun ñëpp on se retrouve autour de l' essentiel mooy le on se retrouvera autour de l' essentiel les élections locales et présidentielles parce que président de la République bii moom il faut ah kon Euh, en tout cas bon euh, sànq yaa ngi koy wax ba sa ay kàddu euh, yaa ngi ne beneen benn mandat am léegi mu jeex et pourtant la polémique toujours mi ngi gën a enflé wu autour de ce dernier mandat xam naa foofu la ñuy jeexee mooy li ñuy wax encore est-ce que di poser question ci éligibilité ak troisième possibilité de troisième candidature du président Macky Sall et tout ñu ngeen ñëwaat ci rek jàngat bi nga xamante ni moom ngeen di def et surtout li nga xam ne moom mooy coow li mën fay boobu les parce que je pense que war na jot aussi ñu. clore boobu les débats une bonne le président de la République moom moo mën a fay coow parce que le droit dafa fiir boo demee téere bi ñu wax constitution ñi ngi wax ni téere boobu mën na article yi si ne mën na sujet à interprétation waaye ñun dañoo jàngal la république des valeurs réewum ngor suñu maam yi jom kersa ngor dignité fulla ak fayda loolu mooy valeur yi nga xam ne ñun moom la ñu xamee gor ca wax ja maa waxoon waxeet dafay war a jeex seul le président peut prendre ses et ses décisions wax ni man kat maa ne woon au début sénégalais yi que man benn mandat laay def wala ñaari mandat donte juum na sax ndax dolli na yaa ngi dégg mun na ñëwaat kat ne ah man kat damaa juumoon waaye maa ngi organiser élection yi bàyyi leen dëkk bi parce que fi mu ne nii xëy na li ma jot a yàq. bari na wala li ma def mën def naa li ma mën am na yeneen Sénégal yu fi nekk yu compétent il faut pas que ñuy wax ne benn nit rek moo fi nekk avant moom président Ablaye Wade la woon avant moom Abdou Diouf avant moom Senghor te bis dina ñëw moom dina fi jóge moo xam si ban anam ñu ngi ñaan yàlla mu nekk si jàmm waaye attention ñi ngi acte njiitu réew mi di ko wax ni na maytu am na benn manifestation boo xamante ne nii ba muy def discours bi tiit na tiit boo xamante ne yaakaar na ne xam na ni Sénégal yi kenn du leen pousse ba ci wis-wis ba ba pare de leen fa di leen fa di leen fa buux donc président ñun li ñu ko mën a wax ak moom mooy na delloo si xelam jàmbaar la góorgóorlu na def li lu mu mën waaye dafa laaj jéem na mënut am na lu ko tënk xëy na góorgóorlu na waaye si si aujourd'hui on avait une note à décerner au président de la République c'est not de 5 sur 20 5 sur 20 donc président 5 sur 20 5 sur waaw on pèse bien un mot képp koo xam ne gis nga ko ñu dénk ko fonction dinañ ko mës a évaluer 5 sur 20 bu jaaralee élection yi si yoon bu fekkee ne moom bokk ci ku jege dina ko jël parce que suñu idée ñoo gën a ñoŋ jamono ji te ñu ñaan yàlla itam nag bu ñu demee foofu yàlla bañ ñoo soppi parce que dégg naa nguur day soppiwaat. yàlla ñu ngi ñaan Sénégal yi ñu ñaanal ñu bu ñu àggee foofu. ñu bañ a soppi ak li yëpp si tey bu la neexoon ba nga ñëw fii bàyyi ma lay laaj rek. waaw benn benn <laughs> non benn wax rek tey booy ñu bañ a changer changer de yaa ngi sañse macha allah yaa ngi africaine. ma lay ndokkeel ci loolu xam nga valeur femme Sénégal ak valeur Afrique tey boo doon dugg fii nga sol fi fourrure fourrure am na solo waaye ñu jamonoy seddaay président li mu def baax na waaye méngawul ak bëgg-bëgg askan yi ñun loolu la wax tabax na yenn infrastructure d'ailleurs à quel coût autoroute à péage Ila Touba bi baax na mais. est-ce que mënuñu ko woon am à moindre coût bu ñu defoon appel d'offre bu sérieux ay teenu pétrole feeñ na fi exemple pour nga xam li may wax nañ ko mesurer Rufisque offshore profond Saint-Louis offshore profond Kayar offshore profond président Thierno Alassane Sall ne président de amuñu doole nañ bëtt ñaari teen yi suñuy bëttee ñaari teen yi ñu wut ku ñu ko exploiter beneen bi ñu denc ko pour les générations futures bu ñu ko dencee pour les générations futures fekk ñu bàyyi li ñoom bu ñu ñëwee génération future yi ñu ñu seen bopp noonu la leader ab patriote di xalaatee président nag hee nañ bëtt lépp lépp lépp nañ ko bëtt léegi gisoo fi benn université bu ñu taxawal boo xam ne mbirum pétrole la pétrole feeñ na depuis ñeenti at ñu ngi ciy coow wax ma ban université nga fi dégg boo xam ne université du Sénégal fan yee tase naag ministre de la fonction publique et de wax naa ko stade du Sénégal bi nga xam ne ñu ngi koy tabax dafa tàggatémbe ñu ngi koy àggale bu nit yi feebaree te mënuñu fajoo lan lay jëriñ centre international de jam Diamniadio terre bi ñu def pour nit yi di sudu bu nit yi feebaree te fajul ñu lan lay jëriñ donc loolu du priorité priorité bi mooy nit yi lekk bu suur nit yi laan ba naan ba maan mhm, priorité mooy ñu fexe ba tool yi nga xam ne Sénégal am na gis nga boo demee Maroc doo gis foo bay loolu moom ma njëkk a marqué choqué ma ba ma demee Maroc fépp lañ bay montagne yi sax dañ ko bay ba mu duggee si terrain bi di def Sénégal da ngay gis àll kett ndeg bu ne yambalang jeunes yi nekk di naan ataaya ak di waxtaanee politique bu doon dëkk bu sérieux jeunes yëpp utal leen ñu dem bay 1000 milliards yooyu suñ ko defoon ci mbay mi subventionné jeunes yi donc ñun ay solutions yu yéeme la ñu am yu simple emploi dina fi gën a am waaye 60 000 emplois 10 000 emplois te yow nga diggoon 500 000 sa premier mandat diggewaat 500 000 sa dernier mandat muy 1 million d' France xëy dem gisuñu dara moo tax mu am 5 sur 20. ay ay solutions certes ngeen am mais daal lu ñu lu ñu sentir mooy que ni république des valeurs. day mel ne euh, dafa dafa dafa tenir un peu ci leadership bi moom cest à ci tenir ba du coaliser wala day éviter yenn parti yi nga xamante ni peut-être pourquoi pas ngeen dem euh, coaliser ak Pastef ànd si def seen ay activité wala benn parti benn parti boo xamante ni euh, bu am doole la mais dafa mel ni vous tenez trop à votre leadership wala boog ah, ah, soxna su seetaan li ngay wax sénégalais ànd nañu ñun de féete ci seen benn côté rek ba li nga xamante ni moom ngeen di produire ci ay solution du feeñ crise yi fi jot xew wane na kan mooy kan crise yi fi jot a xew du ma leen lim wane na kan mooy kan ñun ak Pastef amuñu benn problème ñun ak yeneen parti nekk opposition taxaw dakaar président Thierno Alassane dafay déggante ñoom tout le temps di waxante ak ñoom ñi ngi am ay pexe yu ñuy laal ensemble. kon de yéex na. waaye nag yéexut wax naa la ñi bokk teen ñooy laxasooy ay góoj tey il faut ñu revisiter l'histoire qu'est-ce qui s'était passé Moustapha Niass euh, Tanor Dieng ndem si yàlla yàlla na leen yërëm mook euh, euh, Amath Dansokho yàlla na yàlla yërëm leen coalisé woon nañ en un moment de ànd ak euh, Moussa Niasse àndoon ak président Ablaye Wade mais qu'est-ce qui a qui a fait que cette coalition n'a pas marché donc ñi mën a ànd rek ñooy ànd loolu tamit il faut que tamit ñun ñu leer et qu'on soit très très franc sur nos positions merci beaucoup euh, Daouda Ndoye ñu bàyyi la nga tàggoo comme waxtu bi jot na waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sénégalais sénégalais yëpp di may dédicace sama xarit Euh, bi nga xamante ne ni moom euh, mooy suñu chargé de la communication monsieur Papa Cissé. Euh, mm. nekk ku jàmba auprès de président Thierno Alassane Sall nuyu bu baax ndax moo yombal li nga xam ne waaw donc di gërëm tamit mention spéciale sama soxna nga xam ne tey dafa yeewu 5 heures du matin pour defal ma ndékki yàgg na kaa def waaye tey ni mu ko defee dafa ma gën a neex. <laughs> ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaw ma doon xool di ma nemmee ko naan ma baax doo tardé. Mm-hmm. nga xam ne bokk naa si ñi fi jiitu. Mm-hmm. loolu tamit am na solo ndax nit ki léeg-léeg day tout grand homme une grande dame même fekkee ne on n'est pas encore de grands hommes ñu ngi aspiré te bëgg naa ko jaajëfal tamit delloo ko njugal merci beaucoup si kanamu merci merci ñu lay jaajafal bu baax a baax mu nekkoon daaw euh, Daouda Ndoye donc nekk membre ci cellule bu responsable yi nga xam ni cadre yi féete ci République des valeurs bu euh, Thierno Alassane Sall moom lañu fi dalaloon en première partie la seconde partie c'est avec Abba bu Taxawu Dakar c'est tout de suite